ginnaaw loolu mbokk julli di ñoo ngi ànd ak yéen ci Al Afia TV di ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu nangul ñu jaamu yi nangul ñu bépp yëngatu bu ñu jëf ngir moom tey ñoo ngi ànd ak yéen ci sunu dars boo xamante ne su daganoon ñu ubbee ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ubbee ko loolu ndax kat léeg doomu aadama bu déggee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun de yaakaar ne am na ku dee fekk la wax la joo xamante ne suñu borom subhaanahu wa moo ñu ko wax saa yu ñu déggee musiba te yaakaar naa ne fu ñu saaga ab ay yonent musiba gënu koo rëy ci réew mi ñuy dund di Sénégal di nga xaw a jaaxle ndax saa yu événement yooyu ñuy tuddee événement diine ci réew mi su amee du am ba romb lu di nga ci dégg loo xamante ne danga nga rëccu loo doon bokke ci réew mi. yonent bu toll ne Daawud yonent bu toll ne Suleymaan su ab kilifa toogee ci péncam njabootam wër ko mu ne mu tuumaal leen ñoom ñaar ay njaaloo ci guddi goo xamante ne dañu ne yonent yàlla Muhammad ca la juddoo musiba gënu koo rëy loolu tuumaal yàlla la lu njëkk ndax sunu boroom moo wax ci alquran wa rabbuka a'lamu bi man fi samawati wal ard yàlla subhanahu wa bi mu bindee jaam yi nee na man maa xam ñi nekk asamaan nekk suuf man yàlla ba ma bindee ma xam ñi nekk asamaan ñi nekk suuf ca laa tànn ca asamaan malaaka ya gën ca suuf nit ña fa gën wa laqad faddalna baada nabiyin ma tànn ci mbindee fii doomi aadama yi ña gën ci ñoom ma def leen ay yonent yonent yooyu ma tànn ci ñoom tamit ñu gën ci ñoom tilka rusul faddalna baaduhum ala baad kon yonent yi ay tànn téef lañ ci biir tànn téef waa ndax buur bu toll na yàlla mbokk yi ndax dana tànn ba pare mu juum ndax yàlla dana tànn ab ndawam ba pare def ko am njaalookat te yàlla yonent bu mu tànn rek dafa yonent boobu day nekk royukaay pour nit ñi mun koo roy pour nit ñi mën koo toppandoo ku toll ne daawud su nit ñemee taxaw ne daawuda dafa tëdd ak doomam ci péncum Sénégal quatre pour cent musulman ñëpp ne pat te tey wax jooju suñ ko waxoon kenn ci suñuy sëriñ dëkk bi tàkk ku tànnoon kenn ci xalifa yi waxuma sa xalifa yu mag yi yàlla waaye xalifa yi nekk ni instant yi di dund ku ci ñëwoon ci rajo wala ab tele nga ne benn xalifa dafa tëdd ak doomam wala benn xalifa ci ñoom dafay jël alal di ko jox ay coroom ay gelam dafa am ay gel nga wax ko noonu nga ni kilifa sàngam dafa am ay gel yaakaar naa ne balaa ngoon su gendarmerie yéexee ñëw sa kër wala police kër ga danañ ko taal suñu yéexee ci sa njaboot danañ leen rey kon naka lañuy waxee ab yonent yàlla ba mu tànnee bind mu tànn yonent yi ci biir yonent yi mu tànn ci vingt-cinq 25 yooyu lu tudd seen tur ci alquran daawuda ca la bokk borom bi nee na wazkur abdana xoola yàlla baat bi mu ko tagg wazkur abdana daawud zal ayaydi innahu awwaab allahu akbar yàlla daf ko takkal grab ne kii sama jaam la yàlla ndax dina tagg ab nit waxuma ab yonent ba yónni ko daawuda nekk royukaay ndax xam ngeen ne daawuda balaa yàlla di ko def yonent dafa def kéemtaan ndax moom moo rey jaaluut wa qatala daawud jaaluut yàlla tabaraka wa taala yëkkati ko defal ko martaba mu daldi meññ suleymaan ñu nekk ñoom ñaari yonent yi gën a màgg ci yonent yi soo génnee ulul azmi ñoom nga ciy teg kooku naka la nit di toogee ci guddi goo xam ne dañu ne yonent bi ci la juddoo naan daawuda dafa ne suleymaan alal ji ma la joxoon yépp jox nga ko say coro te boobu suleymaan boobu daawuda di wax loolu suleymaan yëg na ne daawuda mii dafa tëdd ak doomam inna lillahi wa inna ilayhi yal nañu yàlla baat sax baal sax ci niñ koy répété waat suñu gémmiñ ndax wax gën tërëy loolu loolu alquran doon wax ne wala qad qaalu kalimatal kufri wa kafaru baada imaanihim weddi nañ gannaaw ba ñu gëmee yàlla loolu mooy kalimatal kufr mais nag ci gémmiñ googu mu génnee wallahi man de bettu ma man laa wax gémmiñ googu ma déggee baat yooyu loolu bettu ma parce que kooku noonu la mu sa mel moom doomam ñoom ñaar dañoo yaakaar na nañu mel loolu la ñëpp mel ndax ñoom nekk wuñ fi loolu saaga yàlla saaga yonent saaga yonent yi saaga sax seeni baay waaw ndax yaakaar naa ci seen événement yi passé am na ci benn événement bu mu waxoon ne xalifa général bi moo rey kenn ki kuy tuumaal say baay nag dëgg-dëgg waaye xëy na sax bu ko waxoon doomu aadama simple kenn du wax waaye yonent yi mu ko wax alayhi salaam parce que loolu tuumaal yàlla la subhanahu wa taala moo tagg ay jaamam jël ay nit def leen ay yonent hatta yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam daf ñoo royloo sax daawud ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ahabu salaati ila allahi salaatu daawud man yonent julli yi ma gëna bëgg moy julli daawud xol yonent bi rombu na ñëpp dem ba ci daawuda waaye mu ci dé mu ne wa ahabbu siyaami ila allah siyaami daawud li ma gën bëgg ci koor moy kooru daawuda li ma gën bëgg ci julli moy julli daawud wa kana mom yanamu nisfu layl mom daawuda guddi gi ñaari xaj ben genn wal gi lay nelaw leneen di du nelaw wa yaqumu sulus wala mu 3e quart wa yaqumu sudus wala juróom-ñaareelu kaar wa kaana yasuumu yowman wa yafturu yowman daaw de daan woor tey dog suba woor tey dog suba ku mel noonu ñu ne da tëdd ak sa doom hmm. reewande weesuwul loolu ak xamadi ak ñàkk yar waaye ku saaga yàlla saaga jibril xas yonent yi kooku wax dëgg yàlla boo waxaatee tamit dangaa waxaat rek waaye ca la mu wax loolu la daan wax guddi ak bëccëg kooku ku jàng histoire Sénégal ba mu commencé di wax ba tey doo ci dégg yar reewande chaque jour bu dégg bëccëg la ma ña yërëm mooy njaboot gi ko wër njaboot gi ko yaakaar ci moom diine wër ko man ñooñu laa yërëm parce que du ñu gis ci moom du ñu mës a dégg ci moom lu baax kooku gémmiñam googu rus naa génne lu baax ndax yàlla ci boppam ku ne ku ne yàlla sax bu ma nee xée ma ni ko xée ku ne gis naa yàlla toog yaru kon mbokk jullit yi euh, loolu moo doon sunu su tey ngi ñaan suñu borom jalla jalalu wa azakamalu mu def ci ñun top euh mu ragne la ñu ba ñu mën a ana ñan lañuy deglu ana ci yeen mbolo lañ mëna bok ñu moytu mbolo yi nga xamne dajale nit ñi di saga yalla ko yonentu dong mo fa nek ñu ngi jéggulu ci kaddu yi in aratu illa al mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh